Cérébraux International. Cérébraux International. YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen dégtal li gën a fës ci xëtu njëkk yéenekaay yi bés bu tey di mercredi 17 août 2022 dañ koy tàmbaleek yéenekaay bii di L'As quotidien ñoom nag dañoo dikkaat ci këru liggéey liggéeykaay bii di Expresso ñu ne nag ñu ngi ci ay jafe-jafe ci jamono joo xam ne sax euh, lu toll ñu ngi def ay licenciement abusif maanaam ay euh, liggéeykat yoo xam ne dañ leen di dàq loo xam ne sax euh, jaarul yoon wante tam ñu ne seen masse salariale dafa wàcc ba 10 pour cent ñëw nañ itam ci euh, grand parti euh, miñ ne nag moom mooy grand perdant maanaam mooy ki gën a ñàkk ki seddale poste député yi ci biir Yewwi Askan Wi euh, pop yéenekaay li ñëw vox dañoo fësal nag nee kii di EPS daal jugee na ci lii di coalition bokk gis-gis liggéey gannaaw bi nga xamee ne kon Pape dafa jël décision pour fekki Benno Bokk Yaakaar wante itam ñëwaat nañ ci François Mancabou mi ngi ne euh, démb jëbal nañ ko boromam ca cimetière Saint-Lazare euh, ñëwaat nañ itam ci euh, hôpital Aristide Le Dantec mi nga xam ne fi mu nekk nii nag service ya dañ koy toxal ñu ne nag ana nan lañu ñu mbir yi ci hôpital yu dakaar yi ak hôpital bu fële ci ay hôpital yu nekkoon ca Touba. le soleil yéen kaay dañoo ñëw nag ci tontu bi nga xam ne au conseil de collectivités territoriales tontu nañ ko jëmale ci Yewwi Wallu muy sàkku boobule institution ñu dakkal ko ndax dañoo jàpp ne amul njëriñ ñoom nag fësal nañ euh, seenu bilan bu juróomi at euh, yoo xam ne kon euh, lañ ca liggéey enquête yéen kaay dañoo ñëw ci yéex bi nga xam ne kon. yéex nañ ko yéex njiitu réew mi yéex na kaa fal ak premier euh, ministre ñoom nag dikkaat nañ kon ca la ko waral wante dem ñëwaat nañ ci Idrissa Gana Gueye miñ ne nag fi mu nekk nii jóge na Paris ba signé na fële ca Everton. Les Échos yéen kaay li mu fësal ci xëtam bu njëkk mooy Samuel Eto'o di euh, ancien international camerounais nekk président bu fédération Cameroun bu football wante itam nekk ambassadeur bu euh, Qatar 2022 mondial bi moom nag. xam leen ne daal fi mu nekk nii Sadio Mané mooy meilleur joueur euh, ci àdduna bi ñëwaat nañ itam ci Pape Samba Mboup mi nga xam ne yëkkati na ay kàddu jëmale euh, ci euh, législative yi nee na nag benn bokk yaakaar booy xool sax moo dooleel opposition bi wante itam nee na choix bi Pape Diop jël pour fekki bennoo nee na loolu lu baax la le quotidien dañoo fësal li nga xam ne mooy tukki bi njiitu réew mi amoon fële ca réewum Mali ñu ne nag moom libéré na soldaaru Sénégal ya nekkoon ca MINUSMA ba euh, am na sax euh, ñu si jiitu ñoo xam ne ñibbisi nañ fii ci Ndakaaru démb wante itam ñëwaat nañ ci mbirum hôpital euh, Dantec nee nañ nag service yi nga xam ne kon ñoom lañu ñu toxal am na si sax yoo xam ne du mën a dox te septembre jotul Sud Quotidien ba léegi ci opposition bi lañ ñëwaat ak tontu yañ tontu jëmale ca Sud Quotidien kon dañoo dikkaate ci euh, au conseil des collectivités territoriales ak tontu ya ñu tontu kon jëmale ci opposition Yewwi Wallu ñiy sàkk kon ñu daal annulé euh, boobule institution ñoom nag ñëwaat nañ kon ci euh, cinq ans ak daal ab rapport ci loo xam ne kon liggéey nañ ko ñëwaat nañ itam ci bor bi nga xam ne AIBD da koo am ak kàddu yi nga xam ne kii di njiit la di duudu ka kon yëkkati ne ko. fu Walf Quotidien dañoo ñëw ci eh, li nga xam ne moom mooy dàqalikoo bi nga xam ne Yewwi Wallu njort nañ ne dina am te ñu ne loolu nag dara mënul tere eh, ba du am wante dem waat nañ ci njiitu réew mi Macky Sall ñu ne moom daal fële ca bitim réew dañ ko fay tagg wante fii ci réew mi eh, dañ ko fi xalab l'observateur l'Obs dañoo ñëwaat ci mbirum taw yi ak mbënd mi ñu ne nag fi mu nekk nii jaaxle jeexagul ndax euh, waa météo annoncé nañ ne am na yeneen i taw yu am solo yu war a am ñëwaat nañ itam ci njiitu réew mi ak fal bi nga xam ne war na ko fal premier ministre ñu nag ana kan lay fal fi mu nekk nii loolu moo ub boppam libération yéeni kaay dañoo ñëw ci mbir mu doy waar mu xew fële ca unité 17 bu Parcelles Assainies ñu ne nag ñaari xale yu góor euh, lañu ñu fekk daal euh, ñuy def mbirum góor jigéen maanaam ñuy tëdd wante itam ñëwaat nañ ci euh, li nga xam ne mooy cek cek bii di Stanislav euh, euh, Seyid moom nag nee nañ jàpp nañ ko fii ci ndakaaru moom nag bokk nañ ci juróom fukki band yu mag yi nga xam ne ñoom la ñu gën a wër ci àdduna wante itam ñëwaat nañ ci projet Akon City ñu ne gannaaw bi nga xam ne nag ñaari at ba ñu tegee première pierre ba fi mu nekk nii ay ñax rek a fa nekk le témoin yéen a ñëw ba léegi ci mbirum premier ministre bi ak daal ñu ne boobaak léegi mot na neuf mois mënuñ koo fal euh, ñu ne nag euh, li waral boobulee yàgg wante itam ñëw nañ ci haut conseil des collectivités territoriales ak daal euh, tontu ba ñu tontu jëmale ci opposition bi réew mi quotidien dañoo fësal seen xët wu njëkk li nga xam ne mooy Yewwi Wallu ak daal taxawaay bi nga xam ne war nañ koo am fële ca biir assemblée ñu ne nag euh, boo mayul sax dina am trois groupe parlementaires euh, boo xam ne kon si ñoom ñooñu lay soqeekoo bes bi le jour dañoo ñëwaat ba léegi ci hôpital la daan teg ak daal toxal bañ koy euh, toxal ngir tabaxaat ko ngi ne nag fi mu nekk nii am na lu toll si juróom fukki néew ak juróom yoo xam ne ñu nga fa ñu war leen daal suul wala jëbal seeni borom ñu ne nag am na fanweer yoo xam ne kenn identifié leen maanaam xamee wuñu leen. ñëwaat nañ itam ci Samuel Eto'o ak daal euh, kàddu yam yëkkati jëmale ci Sénégal ak ci euh, Sadio Mané l'info yéen kaay dañoo ñëwaat ci haut conseil des collectivités territoriales ñu ne daal booy xool ab institution la boo xam ne tur ba moo lëy rek waaye ca biir dara néew fa ñëwaat nañ itam ci njiitu réew mi ak tukki bi nga xam ne amal na ko fële ca réew ma càdd ak it François Mancabou mi nga xam ne jébbal nañ ko boroomam ba suba démb tribune yéen kaay ñu ne nag benn Bokk Yaakaar fi mu nekk nii mu ngi ci ay jafe-jafe te boo moytul dina sëngeem nee nañ nag euh, bokk na sa jafe yooyu sax njiitu réew mi ak euh, tànn bi mu war a tànn euh, premier ministre président bu assemblée nationale ñëwaat nañ itam ba léegi ci beneen mbirum ngóor jigéen ñu ne nag mu ngi am fële ca place bu Bessayaaw ñu ne nag juróom benn nit lañ fa teg loxo ñu ne nag bu nekk loon takk der yi sax ñii di population ba dinañ leen dóor ba faatleen stade yéen kaay yi dañoo ñowaat ba léegi ci euh, mondial 2022 ak taxawaay ba nga xam ne Sénégal war na ko fa am ak yaakaar yi nga xam ne kii di Samuel Eto'o am na ko ci ñu ñëwaat itam ci diggante bi nga xam ne mooy diggante euh, Neymar ak Mbappé te fi mu nekk nii euh, neexul wante itam ci ab match amical international bu basket boo xam ne dina am ci diggante Sénégal ak Cap Vert ba suba tey jii. sunu làmb nag dañoo ñëw ci écurie Fass ak nga xam ne moom mooy Malick Gueye di frère ci euh, mbay Gueye nekkoon nit euh, ancien secrétaire général bu Fass nee na fi mu nekk nii daal képp koo xam ne dangaa bëgg a dem bàyyi fas na nga dem ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne mooy combat Ama Baldé Gris Bordeaux bi nga xam ne kon taxawal nañ ko. ñu ne sax dina am le 5 février 2023 dañ koy jeexal ak l' évidence ñoom nag dañoo fësal seen xët bu njëkk lu toll ci 162 euh, bu chanvre indien muy maanaam yamba boo xam ne dañ ko teg loxo fële ci ginnaaw palais de la république fi ñuy wax teeru bay soogi wante itam ñëwaat nañ ci retrouvaille bi nga xam ne euh, dafa am ci famille libéral ak PS biñ ne njort ne daal ñoom euh, loolu narul baax ci ñoom ak lan mooy nekk avenir idi ak lii di réew mi lii la ñu indiloon tey ci xibaar rafet seen teewlu lay jox dig daje ëllëg jaa jëf.